tay dañoo daje woon pour def euh, pour euh problème yu ñu am euh, au niveau de l'université et il y avait deux points bon il y avait ñaari ñaari pàcc yoo xam c'est très important moy étudiants yi ñu war indi ren université ak période bi nga xamné

li nga xamné université bi ñu pour que nous yi c'est très important benen point bi les sommes dues manam bi depuis vraiment année bi amul perturbation enseignants vraiment nous..! liñu war def nañ mais état bi ba respecté wul engagement

te Brahim c'était pour nous convoquer suñu militant waxtaan ak ñoom léegi nag dañoo décidé ne tant que par yooyu wàccul lépp lu activité dañ koy aj on a décidé d'observer ñaari yu ñaari jours de débrayage en attendant que l'autorité su loolu su weesoo dañuy continuer ba keroog ñuy am ba période di wàcc